liggéey ak euh, soxna Nathalie Diagne docteur Nathalie Diagne bi nga xam ne moom moo jiite bu Bambey docteur ñu ngi lay nuyu. Euh, merci beaucoup maa ngi leen di fay. voilà ñu ngi sant bu baax ci dalal bi nga dalal Bambey TV tey ci CNRA bu Bambey alors CNRA bu Bambey ñu ngi koy dégg CNRA bu Bambey mooy lan ku bëgg a xam tey CNRA lu mu CNRA euh, c'est le centre national de recherche agronomique le centre Israël Israël nous Israël, leen ko amna centre de donc euh, pratiquement une région agroécologique bu donc euh, def centre qui est vraiment muy que euh, en charge donc des préoccupations donc de ces populations donc le le centre bu est au cœur du bassin Le centre de xamante yagne depuis 1800 98. mais dafa nekk centre boo xamante ne dafa am ay étapes yu bëri. Euh, dañ ko doon wooyee ferme euh, modèle. Euh, dañ ko doon wooyee ferme modèle 1998. ñu ñëw di ko wooyee voilà le secteur expérimental de voilà de l'arachide. et puis ça c'était en 1913 après euh, en 1838 euh, donc le euh, Sénégal est devenu le secteur soudanais de la recherche agricole et c'est en 1950 qu'il lañ créé le centre de recherche agronomique maintenant à partir de l'indépendance en 1960 donc ce centre de recherche agronomique est devenu le centre national de recherche agronomique mais ci temps yooyu tubaab yi ñoo ko yore woon ñoo ko yore woon ba 1974 mooy année bu ñu créé ISRA ci lañ ko confié euh, voilà waa ISRA ñu yore ko di diriger donc activité alors tey Sénéra lan mooy dëgg-dëgg ay ay yëngoom ci yan ci yan ci yan secteur wala yan yan activité lay def. Sénéral euh, nag mu ngi yëngu ci euh, wàllum mbéy di di gunge béykat yi loolu mooy nekk te Sénéral dafa couvrir ay euh, région yu bëri moo du du dem ci Louga Thiès Diourbel Kaolack Fatick Kaffrine mooy lu ñuy woowee bassin arachidier Sénéral moo couvrir région yooyu C'est euh, mission scélérat bi mooy euh, voilà euh, ñu liggéey pour contribuer dans l'amélioration de la productivité des céréales et des légumineuses la conservation aussi des ressources naturelles et la formation aussi et le renforcement de capacité des acteurs donc de la chaîne de valeur agricole donc maanaam dal ñu ngi fi pour le jafé jafé yi yu ñun ñu taxaw ci andi ci solution mm-hmm. jafe-jafe yi bëri na euh, ñu ngi ciy liggéey te tey dinaa ci wax mais dinañ ci gën a wax boo leen dellu siwaate pour rencontrer sama naata mm-hmm. alors tey bu ñu waxee bu ñu waxee euh, jàppale béykat yi gunge leen dinañ xalaat wàllu jiw dinañ xalaat gerte dinañ xalaat ñebe dinañ xalaat yeneen tey Sénégal si wàll woow lan la ciy liggéey lan la ciy def Sénégal euh, nak ñu ngi liggéey ci euh, ay spéculation yu bëri ay ay jiw yu bëri donc euh, am na programme sax bu ñu woy amélioration donc par état programme boobu dañuy liggéey ci ay aspects yu bëri parce que boo xoolee dëkk bi Sénégal nit yi dañuy gën a bëri mm-hmm. te ñun on est conscient de cela looloo waral donc dañuy liggéey pour am ay variétés yoo xamante ne.

donc tax tax ñooy liggéey euh, euh, ngir euh, génnee ay variété yu ñuy woowee variété biofortifiée dafa nekk variété yoo xamante ne dañu am ay ferñeent lu jëm ci fer lu jëm ci zinc variété yu baax la pour xale yoo xamante ne dañu am malnutrition pour jigéen yoo xamante ne voilà dañu dañu nekk en état pour aussi jigéen yuy nàmpal en plus de ça aussi xam nañu changement climatique yi ak taw yi aussi ak bii taw day bëri beneen ak bii taw bi moom du demee noonu loolu tax dañuy liggéey ci euh, l' ensemble de ces variétés yu ma wax loolu dañuy liggéey pour am variété yoo xamante ne daal dina méngoo ak taw bu ñuy am donc taw bu tuutee tuuti sax euh, baykat bi mën a góob tuuti donc mooy lu ñuy woowee variété à cycle précoce ou précoce am nañ ci lu bëri euh, voilà pour dugub bi am na bu ñuy woowee gaawaan comme tur bi nu koy waxee gaawaan

yoo xamante ne euh, des variétés yu gaaw la te variétés yooyu sax boo xoolee dañuy dañuy mooy variété centenaire mooy euh, doolu nga xamante ne moo doon xonqal sorgho bi euh, ñun chercheurs yi gëstukat yi liggéey nañ bu couleur boobu amatul parce que couleur boobu dafa nekkoon loo xamante ne tey suñu yaay daal apprécié wuñu ko woon quoi ci couscous bi waaw loolu aussi ay jéego yu doy waar la mm. am na aussi variété yoo xamante ne dañ leen bi woowee double usage parce que tey tey euh, bu bëree euh, c'est-à-dire production bu bëree dañuy xalaat aussi euh, ci am ay perte yu bëri mais aussi am biomasse yu bëri c'est-à-dire ngooñ bi mëna a bëri tey loolu lu baax la pour éleveur yi lu baax la pour jur ji donc loolu yëpp dañ ci liggéey mais ñu ci création variétale parce que variété aussi boo ko créé dañ koy gunge mooy tout ce qui est aspect bonne pratique culturale loolu tax euh, nu ma ko waxee équipe pluridisciplinaire bari nañu ëpp nañu euh, fukk euh, gëstukat yi fi nekk donc mais ku nekk da nga am sa pàcc mais ñun ñëpp ñooy liggéey ñooy booloo liggéey parce que variété bi boo ko génnee il faut nga xool lan moo koy accompagner comme bonne pratique culturelle mais en plus de ça aussi am na yeneen gàllankoor yeneen jafe-jafe lu jëm ci suuf si lu jëm ci aussi ci feebaru gàncax bi donc si suuf si aussi ñu ngi ciy liggéey nu ñuy def ba mun a yokk suuf si doole euh, ñu ngi ciy liggéey euh, ay ak ay pratiques agroécologiques yu am euh, vraiment maanaa lu jot aussi ci aar gàncax ji ñu ngi ciy liggéey bu baax ñu ngi liggéey aussi ci wàllu mécanisation parce que mécanisation boo xoolee voilà dafa nekk loo xamante ne day gën a am dañ ko dañuy dañuy gën a xaar vraiment ci aspect boobu parce que léegi boo xoolee béykat yi ku nekk sa doom dugal nga ko école donc main d'œuvre bi dafa manqué loolu tax il faut que ñun gëstukat yi ñu xool vraiment nan lañ mën a jàppee béykat yi ba ñu am euh, ay machines yoo xamante ne euh, vraiment duñu cher adapté yoo xamante ne aussi dina yomb a utiliser euh, jigéen dina ko mën a utiliser góor dina dina ko mën a utiliser te dina accessible voilà et am na aussi suñu yeneen naataangoo yoo xamante ne dañuy gunge parce que changement climatique moom dafa dafa nekk lu complexe mais ñoom vraiment dinañ ci jàppale dinañu jàppale ba ñu am vraiment des informations climatiques yoo xamante ne ay outils yu am solo la pour vraiment les décideurs donc euh, équipe bu boo xamante ne équipe bu complet la mais loolu yëpp aussi dafa am une équipe euh, d'appui technique qui est là te ñun ñëpp ñooy ànd liggéey euh, liggéey bi aussi defuñu ko ñun kese dañuy ànd ak yeneen structure au niveau national au niveau international mais luñ ci mën a jàpp rek mooy nous sommes là ISRA CNRA béykat yi ñoo ñu tax a jóg euh, seen jafe-jafe ñoo ñu tax a jóg donc euh, loolu mooy vraiment suñu mission. alors xëy na bu ñu waxee tey CNRA rek ku ne CNRA ne Bambey hmm. tey CNRA lan lay yokk Bambey wala lan lay jëriñ Bambey. ah CNRA euh, nag boo laajtee ñu fi yàgg bàyyeeg xam nañ ko bu baax xam nañ vraiment. valeur et importance pour Sénégal euh, pour vraiment département de Bambey déjà ci wàllu euh, technologie euh, les nouvelles technologies générées hmm. boo doxee ba rek da ils utilisent ces technologies ci wàllu aussi des nouvelles jënd variété améliorée et je pense que le fait que les technologies générées au Sénégal ils les utilisent c'est C'est c'est la collaboration donc on a un partenariat avec voilà avec euh, le département di liggéey ci ay projets yu bëri euh, di aussi euh, tàggat ci wàllum mbéy nu les bonnes pratiques culturelles et cetera dafa nekk convention ko yoo xamante vraiment ñoo ñoo ko bokk ñun on se dit que voilà ils sont plus proches Nous dañu war a servir modèle c'est-à-dire ku dëkk Bambey war nga tay bo génnee ñu xam ne Bambey nga jógee ah Sénéra moo fa nekk lii kat mokkal nga ko parce que Sénéra moo fa nekk donc loolu yëpp dañ koy jàng te am aussi euh, lu gën a euh, facilité jàng boobu parce que vraiment beaucoup d'entre eux ay xale yu bëri ay mag yu bëri dañ fi ñëw euh, liggéey ensemble vraiment ci ci suñu tool yi dañuy jàngaale aussi donc il y a la main qui est là vraiment une main assez importante boo xamante ne moom la Sénégal di offrir mais c'est un partenariat boo xamante ne vraiment

Donc, nous devons lier en étroite collaboration avec cette population-là, avec euh, l'ensemble des autorités aussi qui sont là. Parce que nous avons la même mission, c'est voilà, donc euh, satisfaire euh, les préoccupations du monde donc, paysan. Sénéra Tedjul Buntu, donc on est très ouvert à la collaboration. Et nous vraiment, tu es un moyen, tu es aussi compétentiel

Bambey TV moo tax ñu ngi leen di suivre ci YouTube di leen suivre ci Facebook bi di gis combat yi nga xam ne moom ngeen di mëne ngir population Bambey gën a jëm kanam population Bambey am seen ay yelleef population ñi tawat gis nañu sax émission ñi nga xam ne leen di tawat ngeen leen di jàppale ba ñu leen mën a faj wax dëgg yàlla loolu yëpp ak plateau yi ngeen def jamono yi rafet na lool te du ñu soxla la ndax ñun ñuy yëngu ci wàllu tàggal yaram euh, ñun ñuy yëngu ci wàllu euh, tas xibaar xam nañu njëriñ bi nga xam ne lu mel ni moom la mën a am ci dëkk yu ndaw yu mel ni donc vraiment ñu ngi leen di encouragé di leen di leen di leen masawu coono ndax ndax kuy xeex lu mel nii nag foofu mu am coono di ñaan rek euh, télé bi gën a jëm kanam ba ngeen toog boo mel ni TFM ak ak ak ak des s ndax nit ku nekk nag da ngay am ambition mu leen di ñaanal ambition bu mun a àgg foofu te euh, lépp li ñu jublu ci Bambey jëm kanam ñun ñëpp ñu bokk ko liggéey ba ñu mën cee mën donc tamit voilà gannaaw bu bu loolu amee nag kon ñu ngi xaaraat bu baax waa Bambey TV di jox rendez-vous population yi ndax passionné nañoo def ay émission yu bari ak ay plateau yoo xam ne dañ koy jagleel wàllu mbay mi di général di liggéey ni ñuy euh, suuf si nan la général mën a liggéeyee ba suuf si jëm kanam ni mu leen ko waxee feebar yi dal ci gàncax yi ak yeneen ak yeneen lépp li nga xam ne daal général mu ngi koy liggéey incha allah dinañ def ay plateau yu bari yu wuute a tax ba daal kenn dootul réere lépp li nga xam ne moom mooy xam ci ci ci ci général ak itam ci Bambey ñu ngi delluwaat daal di gërëm bu baax di sant ba fan yi incha allah